Euh, gannaaw si tey bi nga xam ne Khalifa Sall euh, finalement tey ñëw na euh, sànq yu demee noonu nan lañ mën a comprendre tey ngeen am ñetti député te Khalifa amul dara ci ay député. aywa ah, li ngay wax ci affaire député bi lan moo tax grand parti jël loolu jël place su boobu investi def yóbbu fa seen élément te xalifa amul benn représentativité au niveau de l' assemblée loolu damay naan. xalifis yi wala ñeneen ñi comprendre ñu quoi parce que bu ñu comprendre woon maa liggéey demul assemblée nationale pour remplacer Khalifa Sall Malick Gueye moo bu benn élément benn élément bu góor génnee Malick Gueye moo ko war a remplacer bu doon tey ku ji place xalifa bi bu doon jigéen moo fa génn soo xam war di moo koy remplacer parce que moo nekkoon position huit mais Malick Gueye moo nekk position neuf li tax Malick Gueye remplacer Khalifa parce que bu góor génnee góor moo koy remplacer foofu sax dafa sori. gis nga euh, Khalifa Sall euh, biñ nee dañuy investir Malick Gueye ñëw nañ ñoom taxaw di demander Malick ak Malick Gueye pour ñu bañ a jël euh, maanaam Malick bañ a dem assemblée ñu jël benn élément Khalifa si yóbbu ko fa pratiquement loolu mënul nekk mais li leen Malick Gakou li leen Malick wax moo gënoon yomb te bu doon defe naa ne bu doon ànd bu dëgg la ànd bu ànd bu sincère la ñoom waroon nañ ko mën a nangu. parce que euh, boo xoolee bi ñuy bi ñu nee Malick Malick Gueye dafa war a dem assemblée Malick dañu leen comme que Macky Sall day jaay Khalifa Sall doole jaay suñu ki nga xam ne moom moo nekk suñu tête de liste nationale doole doole jooju noonu nañ ko gedd assemblée nationale nañu génn ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk maa ngi ko watu Séné maa ngi ko taxaw Sénégal nekk ay député foofu nañu gedd jour bi nga xam ne wax nañ ko fa Bamba Fall egg ba Cheikh autant pour moi maa ngi jégalu si Bamba Fall Cheikh Bamba Dièye eggalewul réunion boobu te moom moo ñëwoon ànd doon manigancé loolu ñëw proposé loolu mais ba ñuy waxtaanee bañ ni dañuy jël affaire affaire jël député yoo nekk foofu yëpp ñu démissionné bàyyi Macky Sall ak assemblée am dafa nangu jour bi ñu investir Malick Gueye bi ñu ñëwee assemblée nationale Malick Gueye dafa ñëw indaale lettre de démission am Déthié ñëw indi lettre de démission am Cheikh Bamba Dièye moo leen njëkk wax moo leen njëkk a jël parole bi mu waxee ba pare dafa wax ba pare dem. lan moo tax taxawul xaar parce que xam na ni ñoom Malick Gueye bu ñu ñëwee dañuy proposer lettre de démission bàyyi Macky Sall ak Moustapha Niassène assemblée mais defu ko moom moo def mais bu taxawee ni ay xalifa Sall ànd bi mu ànd ak Khalifa Sall lu honnête la lu sincère la je me dis bañ taxawee di néewal doole xalifa Sall ba ñeneen ñi taxaw ni nañ jedd assemblée bi moom moo njëkk a bañ parce que bu si taxawoon tey de Malick Gueye du nekk député Déthié ñoom ñëpp dañuy gedd assemblée bi bàyyi koog Macky Sall waaw. Malika yi question bi jëm rek mooy ñu ngi dégmal ay local élection locale d' abord sax balaa ñuy ñëw euh, seen taxawaay ak ni ngeen di waajalee élection locale yi Sénégal yu bëri dañoo comprendre wul nan ngeen def ba perdre euh, géejewaay ak ni ngeen fa amee doole nan ngeen euh, lan la ba kii di Aliou Sall daal instant yi gars yi dominé leen foofu loolu lu mu bon man personnellement man damay sant sunu borom bu baax ba ma nekkee ci grand parti. Euh, grand parti sunu ki ko jiite instant bi di El Hadj Malick la docteur Malick Gakou nekk nit ku dëggu nit ku respecté parole nit ku respecte ay engagement am te lu néew la ci politique gu tey yii donc 2014 gàkku moo nekkoon euh, coordinateur Benno Bokk Yaakaar foofu ci Guédiawaye ka fa nekkoon maire mooy Cheikh Sarr Cheikh Sarr maali Gakou joxoon na ko kàddoom. ni ko bu ñu demee élection local man yow laay soutenir yow laay jàppale. bi ñu demee ba la veille des élections si la Cheikh Sarr génn Benno Bokk Yaakaar bi dem ànd ak waa bés du ñàkk pratiquement foofu faussé na Malick Gakou investir wuñ ko toon ci liste bi waroon a dem élection locale bokkul benn yoon nekkul nekk bokkul bokkul ci liste bi bi ñu demee Aliou Sall fa mu génne Aliou Sall position am sax sori woon na Malick Gakou xamul Aliou bi ñu ñëwee bi ki jàppale. ñu dem si élection yi bu ñu demee ñu jàppale ba kii bi gagné ba liste Benno Bokk Yaakaar bi gagné bi liste Benno Yaakaar bi gagné ñu dem Malick Gakou ki mu soutenir mooy euh, le professeur euh, Bamba mm-hmm. donc c' était pas un candidat bien préparé parce que seen Cheikh Sarr moo faussé loolu lépp mais bu doon bu doon li ma si li ma si jàngat bu ndaw bi ma ci am rek mooy dañuy sant yàlla bu baax mm-hmm. parce que Malick bu doon. ay xelu politique politicienne comme ñi ko ñii di defee kon du perte géejawaay kon day jël géejawaay jamono jooju 2014 bu doon day ànd ak nit di ko fa xastal kon day jël géejawaay mais kon boobaa du ànd ak Macky du ànd ak Moustapha Niasse day jël géejawaay ba pare après bu problème bu mu am ak Moustapha Niasse ñu doo ko lijjanti mais du Malick Gakou moo jàppale Aliou Sall mu jël géejawaay loolu ku koy wax da ngay wax lu la neex rek Malick Gakou nekkutoon candidat Cheikh Sarr la doon jàppale te Cheikh Sarr mu ngi nekk poulain Malick Gakou 2009 Malick Gakou moo gagné moo gagné élection Guédiawaye doomu banlieue mu sa nekk président conseil régional de Dakar Malick Gakou seul moo ko fi mu sa nekk bu mu jugee Guédiawaye mu ni comme que boo pratiquement boo demee Dakar wala nga dem ci ville yeeg nangam na dañ leen waaye doomu banlieue mënut a jiite Dakar nangam naa boo doomu banlieue dañ leen jëloon des personnes tellement limitées Malick jël défi boobu gagné élection 2009 dem. du dem élection conseil régional de Dakar gagné conseil régional do yor ko jël Cheikh Sarr problème teg ko mairie Guédiawaye mais doo jël sa problème teg ko fa ba ni élection day jotaat nga ko jugal ma toog mu jox engagement jàppale ko ñu dem ba la veille Cheikh Sarr dem bés ni ñàkk donc moom mu nekk euh, coordinateur Benno Bokk Yaakaar bi après si la Aliou Sall ñëw. xam nga xam nga xam nga même bu fa Cheikh Sarr nekkoon sax euh, dialogue bii ñuy def lu am solo la parce assise nationale dañ ci waxoon ni euh, suffrage euh, élection yi élection locale dafa war a nekk suffrage direct mais bu dee élection yi ni mu mel moom lay continuer de mel ku ne mën na nekk maire parce que après bu boo gañee conseil yi dem voté waat conseil yooyu am fi na mais il faut que ñu changer maanaam def ko suffrage direct c'est-à-dire ki nga xam ne moom la askan bi bëgg moom mooy tête de liste bi boo ñu gañee mu nekk la maire directement mais bu dee nii lay demee loolu moo tax bokk na si tax li Malick Gakou démissionné si gouvernement Macky Sall parce que engagement yi ñu jëloon si assise nationale Macky Sall ko ba Malick Gakou xamee ni Macky Sall lii mu jël si engagement yi assise nationale doxaleewu ko mais dafa bind ko lettre démission génn gouvernement ba ñëw taxaw opposé wu ak moom jàkkaarloo Sénégalais yi. yéen xam nga local yi moom liñ ci wax mooy parti bi prononcé gu si mais bu dee comme ni nga ko waxee si mali Gakou defe naa ni Malick Gakou. Euh, il toujours servi le pays quelle que soit sa posture nekku fi di xaar ay élection locale pour mën a wane cofeelam ak bëgg-bëggam ci banlieue bi ci rawatina ci géejawaay gi nga xam ne fa lay yeewoo kon donc du question de ay élection local moo tax ñu taxaw pour mën a delluwaat géejawaay wala nangam mais Malick Gakou est toujours a géejawaay mu ngi jàppale waa géejawaay mu ngi seen doom la seen rakk la seen nijaay la seen xarit la ils sont ensemble bon bu élection locale yi bu ñu ci définir ba xam date bi kañ ak nangam naa bu boobaa bu bëggee nekk maire Guédiawaye je pense que amul benn problème day day posé lu dul euh, di rafetlu invitation bi et puis di xamal euh, les militants et sympathisants du grand parti. grand parti dafa pare pour opposer wu te si la nekk te si la mës a nekk donc lépp li nga xam ne ay question intérêt national grand parti da ciy taxaw. mais lépp lu mu ciy def tamit dañuy da ciy dem ak sérieux ak discipline parce que yi tal nañ leneen lu dul ay xuloo xeex yi tal nañ leneen lu dul ay saagante wala ay xasante wala nangam nangam ñun daal noonu lañ jàppee politique bi euh, li ñu jàppee politique mooy confronta confrontation ay projet ay idée te pour nga am projet am idée faaw nga dem ci terrain bi jànqantoo sénégalais xam ne ñuy dund mën a taxaw am ci am ci xalaat daal mun a am loo si loo si proposé maa ngi leen di remercier bu baax merci beaucoup